sëñ Fallu. yaa ngi sa bërëb de. dëkk bu tedd macha allah sa turandoo sa dëkk turandoo bi. Hmm. macha allah. ci si jàmm. Hmm. fas yéene gis sëñ allah. voilà. dama tabax taw alhamdulilah Fall jërëjëf ba sonn leen déedéet déedéet déedéet taw alhamdulilah Touba a sori non mais effet sorul péage moom macha allah waaw allah sama ñu si jàmm alhamdulilah Fall jërëjëf jërëjëf

si moom daa feebar waaye neen day ñëw ko ah ah moom kay macha allah macha allah waaw. bien bien Sané. faama ci sama jarbaan. ah waaw faama waaw macha allah ak délégation yi ñu ànd. waaw waaw incha allah. sëñ Fallou Mbodj. Mbodj Fallou sama nijaay la sama nijaay Mbodj la sant. ah waaw waaw suñu yaay waaw sëñ Jili Fall ah xam nga naa ko. sëñ Jili Alaaji Lamine Fall. mu Alaaji Lamine Fall. waaw waaw waaw mu Suisse. waaw Alaaji Lamine Fall mu Dakar mu Suisse. Naar waaw Lamine waaw suñu taalibe la waaw moom laay àndal chaque màggal waaw wax nga dëgg sang bi ci jàmm ñu so day day tar masa coono nag masa coono Modou Modou xam nga ma ko wax sax ndax day suñu ndax waaw waaw waaw ma mbay kon ban la fekk see waaw mbay da ngaa sëgal ji dogul ko am loo wax ak moom sa ñaan ngaa nangu ñu jëm élection présidentielle mu tàll loxoom ndax xel mu dal ndax lépp yaa ko waral maa fekk lu bëri waaye nag loolu yàgg naa am bu ñu delluwaatoon démb sa kër maam rek mënunu kër damay day calaw Fall rek moo jóge ñu ko wàcc ndaat sama kër maam la jaar nu gunge ko mu sanc ndand Fall am fa maam Atumaan Fall tuddu ko tural Atumaan gi si ndand mu am fa Ahmadou Rokhaya Fall mu wàccoo njëre wàq jox ko maam Seydou bu Ndiaye sa maam <laughs> moom ci sëñ Saliou Fall borom dara xufuur ak Cheikh Rafal gàññeero yoon ni booy dugg Touba sa maam lay njëkk seen bu ah. ñuy génn moom ah, ah, ak jumaa ay nu rahmati mm-hmm. ay gendee fa daan ñu bu kenn taal safara genn garab musul kaa taal si Touba dañ rek di rob ñu nu robe doomu adama lan doon robe garab yi sama am Cheikh Fall xam kuy Serigne Touba Serigne Touba tamit delloo ko njukkal lamp baa nga ne di leer Fall yàlla yàlla jëm kanam sa waaye ngi nee nag man foofu laa mën a yem sa ngi waaw ah, nag moom gis ci liggéeyu maam. ngir sa liggéeyu maam. di la xool ne di la xool. ku ñuy xool fa ñuy xool. ku ñuy xool ku ñuy xool. da ngaa war a jàpp leer. ne da ngaa war a jàpp leer. da ngaa leer. da ngaa war ne moo tax. moom mii. lépp lu mu nekk. lépp lu mu nekk. ne sama xel dal na ci. ne sama njort rafet na ci. ne damaa gis sama bopp si moom. ndax dañoo bokk mission. ndax ab sëriñ. jàpp ko tëdd lu baax. ne loolu mooy sunu diggante ma ak moom Sëriñ Tuubaa wax na ni walaahu yam suru ni wal xam du tag ni fil bari wal bari saa ndax yi bilaa dara yi ne yàlla moo a xool ba mu nekk ma ne mu ne te am na lu pas-pas ne Fall dama bëgg nga ñaanal leen